asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum sama gars yi waaw cheikh bi des na waaw waaw di leen nuyu namoon leen trop nag yéen yéen namm ma ñu bare vraiment ñu mooy bind di ma laaj foo nekk cheikh bi gëj nañ la dégg kërëb kërëb Sénégal lii moo fa am lee am na fa dugg na fii genn kërëb kërëb mais ñi waroon xam peut xam nañ ñu bare waaw di leen ko wax nag tey bi nga xam ne yàlla def na ci jàmm sama bët bii ah moom lañ woon opération boo xam ne dañ ko ci doon def moo tax deux semaines yi yëpp ma disparaître ci écran yi gisu leen ma déggu leen ma mais nag euh, yàlla def na si jàmm di remercier ñi nga xam ne si ñëpp yëgoon nañ ko ah ak ñaan yu ñu ma doon ñaanal message yu ñu may yónnee chaque jour di ma seet taxawuma ànd ak man ci euh, deux semaines yi nga xam ne def nañu opération boobu yàlla def na ci jàmm lii rek moo taxaw déggu leen ma gisu leen ma mais c'était pas pour euh, disparaître c'était pas pour ma cacher de quelque chose li nga xam ne sii ñu bare bi nañ ma ko ci li nga xam ne si am na surtout affaire phobie Bougazelli boobu euh, ñu bare bind nañ ma gars yi Sonko yi xam nga ñoom naan ma ah, mu ngi nii lim ànd ak Macky Sall moo tax waxoo ci nangam di xamu leen woon dara dama yoroon sama bagaasu bopp parce que ñun ay doomu aadama lañ ñun yi live nii ah, dañuy tëdd di soj wala ñuy feebar yàlla am lum teg ni leen koy tege yéen ñi di ko teg ñee tëdd ci hôpital yi ak yépp ñoo ngi sant yàlla nag ba nga xamee ne ah ay doomu aadama lañ di am naqar di am métit comme yéen ñi ñuy seetaan voilà loolu moo tax bu ngeen gisee kenn rek manqué ci ñun ak siwul ñëwul waxul hmm, bala ngeen koy xalaate lu ñaaw naan day làqatu ndax diw ak diw ak diw da ngeen xamul affaire ba nu mu demee voilà parce que fii lu ñuy làqatu daf fi amul waaw wala man mbook sama kaa waaw man nee naa leen je supporte le président Macky en personne nee naa leen du ma membre APR parce que bokkuma APR yoruma carte APR donc man Macky Sall laay supporté mais nag Macky Sall bu may supporté lu bon du ko nangu man mii koy supporté du ma nangu lu bon voilà donc lu may toog lu may nëbbutu amu ci waaw ne lii bañ ñuy def opération ba booba affaire bi sax amagul waa amagul. après la am mais ñu ñaaw njort ñoom dañ naan ah grand bi làqatu na daal ndax lii dal kii nga xam ne si moom Macky Sall ñoo ànd moom moo tax nangul génn wax yónnee nañ mu ci ay message yu bare mais j'ai même pas répondu parce que am na ñoo xam di leen tontu sax yàq sa ay wax la pour man voilà man xam nga su may raay bu génnee ku ànd ak Macky Sall ku àndul ak Macky Sall intéressé wu ma Macky Sall ci boppam. leer na ma ne lii ñu accuser waa ji bu dee dëgg la ak preuve ya nga xam tegal nañ ko ko ah Macky Sall ci boppam moo koy jëkk a mere ci loolu Macky Sall du bëgg ca loolu kontaanu ca voilà ne Macky Sall ñi ko entouré ñu ci bare ñom ñoy dem di def seen ay toxi doona ci aduna bi ak ca Sénégal gogou te ku ñi wax ñu naan Macky Sall andal lool ngeen di dégg toujours voilà lool nak da ngeen wad diko ko dindi seen bopp xam Macky Sall c'est le président de la République mais nak mënut a suivre député yak ministre yak ak lu ñuy doxal seen kër ak triandage yu ñuy def ak ñu deful voilà donc bu buggaa euh, délit bi bu dé dañ ko jiñ loolu ay faux biais hein kooku bu dee dafa nek dañ ko wara a jël comme koo xam ci opposition ba la wala sénégalais normal boo xam ne si ah, vraiment du du ma ngay triande ñu def ko ca kaso bee kooku dama leen koy wax yéen ñi may bind li la wax man ànduma kuy sàcc wala koo xam ne saay saay la koo xam ne la muy def dara baaxu ja voilà kooku andak ak Macky Sall lu tax ma ànd ak ñoom ci yooyu waaw man nee gouvernement Sénégal salarié wuñ ma dañ ma koy accuser toujours mais ña may accuser baal naa leen quoi seen problème classe tunkara gi ñooñu xam nga seni wax yu mel ni, moo tax ñi entouré Macky Sall Macky Sall war a xool ndax may atu nyagai may ay as nyagai ngay jox ay assist ñi nga xam si mooy ñi contre Macky Sall classe tunkara gi yu mel ni gis nga ñi ngi ciy marché quoi voilà ci loo xam na yoon ma ngay def ay enquête buma jumul juumul def naa Séné Séné Sénégal dem ne ma jàpp nañ ko ma nga rëbës ok ma nga fa donc magistrature bi en état Sénégal li leen bàyyi ñoom ñu def seen liggéey bu fekkee ne moom lañ ko jiiñ dafa nekk ah, na tëdd foofu dafa gën ña fa bu ànd ak Macky Sall ak ànd ak Ablaye Wade ak ànd ak Sonko ñoo ci yema ah. way voilà mais lii rek war démontrer mu wax Tunkara di ko wax ay ñoñam gaayam yooyu ngeen di yuuxu ah bu fekkoon dictature bi ngeen wax ci Macky Sall dafa am te ngeen ne kii Macky Sall la àndal donc kii waruñu woon sax dem di wax ci moom wala ñu koy jëpp di ko yóbbu ay rëbës kooku moo leen wax ne démocratie ba am na Sénégal yéenay xool lu leen neex ci réseaux sociaux yi di véhiculer lu leen neex ah. ne Sénégal daal ku neex Macky Sall doo dem kaso ku neexul doo fa dugg lan moo tax kii nekk député Macky Sall ba pare ñu jël ko di ko yóbbu kaso bu ngeen dul ay naafeq di leen wax dëgg ngir yàlla voilà. man nag nit ki duma ko accuser tëj ko kaso fekk yoon tëju ko parce que yéen ñi nit ci réseaux sociaux yeeg mbalalal yeeg revue de presse yi du yéen yéen a yor justice Sénégal du yéen yéen a tëj wala ngeen di tëj nit déedéet justice moo koy def. bien que am na ñoo xam ne ci yéen genn wàll gi respecté wuñ la justice sénégalaise buñ defee luy loo xam ne arrangé na leen justice am na démocratie am na Sénégal buñ defee contraire ba koo xam ne si da ngeen ànd ak moom ngeen bëgg ne justice amu fa dictature moo fa am da ngeen may wax nag ban côté ngeen féete man nag benn côté la féete xam nga fu féete côté justice. Bougane Dany bu fekkee dafa jël faux billets yooyu doyloowul la ko yàlla jox. am na ñoo xam ne si ña ngay xëy suba ak ngoon di jaay ay gerte caaf ca marché ñee def ay bitigu mbagg ah nga jël ay bi faux billets di ko distribuer ci marché yooyu ah vraiment ma ngay def lu ñaaw ndax yàlla baaxee na ko lu mu dundee ak njabootam lu mu dundee voilà donc ñu jël billet yooyu di ko joxe nit ñi pour seen richesse personnel ah ba dugal koo xam ne si ma ngay jaay gerte caafam wala bitigum baggam ñu gis ko ak foo phobie boo xam ne si ñoom la jóge ñu tëj ko ca kaso xam nga ne ñii xooluñu seen ëllëg suba voilà kooku defe naa ne Macky Sall ba ngeen di accuser àndul moom ci loolu bàyyi leen nag lépp lu ñaaw koo xam ne si militant Macky Sall dong la ngeen bëgg ñëw nag lépp attaqué Macky Sall amatu leen fu ngeen jaar ci Macky Sall lu dul ku takk ci moom bu defee ay tooxi am ngeen ne Macky man mii sax bu mu xëyoon sàcc suba ñu accuser Macky Sall lan moo ci yoonu Macky Sall est-ce que Macky Sall mën na moom contrôler man 24 heures sur 24 est-ce que mën na contrôler Bougane moom est-ce que mën na contrôler ses ministres. ay doom yu mu jur sax daf leen mën a contrôler ay doomam mën nañ xëy dem daf tooxi doona yoo xam seen bàyyi yëgu ko mais bàyyi leen seen feq bi bu ngeen amul lu ngeen atu accuser nit ki lu ngeen attaqué nit ki dinañ ko def ci logique au moins hmm, ngeen di di ko calculer ci seen bopp ne yow mi may seetaan sa doom sa ndey sa baay la ngay xëy suba ba ngoon di ko def est-ce que sa yaay sa baay yëg na ko walla xam na ko yow nga dem sàcc wala nga ray nit ñu di accuser sa bay. la même chose bi ngeen def ci Macky Sall Macky Sall politiquement action politique am lan lay liggéey mi ngi liggéey wala liggéeyu ko jox Sénégal mang koy def

parce que moom yamul ci moom kese mais xam nga doomu Sénégal yee muy circuler 32 milliards xaw ma de waaye de franc ay faux billets nga koy jaarale ay ñiy jaay ñoo xam ne dañuy xëy amuñu salaire ba nga am di daan seen doole nga fexe ba billets yooyu jaar seen loxo ëllëg police mën leen see jàpp ñu tëj leen te seen yoon nekku jóg xamuñu ni ñu koy contrôler mu ñu ko xam kooku def nga ne mu ne ca pouvoir baag opposition balaa ci yamale ni ma ko xalaate la ko son excellence Macky Sall xalaate bu dee lañ ko jiiñ dëgg la am nañ ci ay preuve na tëdd ca kaso ba kooku yoonu Macky Sall nekku ca doomi makki Sall sax mënoon na yoon ay phobie bu ko defee baayam lan la ca xam baayam lu la ko yëgee leen atta dëgg ngir yàlla voilà loolu laa amoon ci lu may wax pour ñu ma ci accuser nekkuma fi naan damay défendre ay Bougane li may défendre mooy bu doon ku bokk ca Sonko la ak Ablaye Wade qui que ce soit idi ak ku mën a ah, buñ la accuser lii danaa nañ ko dem vérifier buñ ko vérifier muy dëgg kaso ba fa nga war a tëdd ña fa tëdd non leen parce que yaa ngi noonu dugal ay doomu jàmbur yoo xam daañu dem tëdd ci kaso bi grâce à tes conneries voilà nit ñi dañ dañ war di doylu voilà ku dem ba député

baadoola yee nga xam ne ñoo waroon dem di def trafic yooyu defuñu ko léegi yéen yéen ñi ñi yaakaar gëm leen ñoom ñoo koy def man duma ci ànd ak kenn muy Macky sàll ak ku ne ci opposition balaa yemale Macky Sall ci boppam leer na ma ne gisuma ko dégguma ko waaye moom la lii gën a metti ndax yéen baadoole yi yéen ay opposant moom ngeen ci jéem a accuser yoonam nekku ci tey yoonam nekku ci suba muy tunkara baadoola be ku mën a doon tunkara sa doom bu demoon di trafiquer sa yoon nekku ci voilà yow mi li nga sabai, sa baay yoonam nekku ca buñ demee di attaqué sa baay ñu ngi koy tooñ foofu laa am lu may wax bu leen doyee saba bu leen doyul yéen xam kooku gi yéegal ba ca kaw cheikh bi del si na sama gars yi moo ngi noonu voilà buñ jógee ci loolu nag ñëw ci rayum jigéen ñi lundi incha allah journée mondiale de la violence sur les femmes mais góor ñi lan moo tax ñuy doom yi yi lan moo tax góor gu ci tekkiwul dara noo koy faje mooy ñëw rey jigéen jël jigéen ñi leen dóor dafa góor gu am doole nekk ponkal di jaay ngand ñëw fekk jigéen nga yëkkat soro di ko dóor baadoo nga koo mën a doon nag ngay ku weex ak ku ñuul parce que loolu ngeen def Sénégal am na ci tubaab yi rey seeni jabar di leen maltraité di leen dóor du matin au soir au nom de quoi loolu lan moo koy indi tool danaa ci yee jigéen ñi danañ ci yeewu di ci yee ñi nañ ci war a yeewu fii ñu nekk ci Europe muy Europe bi Amérique léeg-léeg gis baay seex boo xam ne ci àll ba la jóge village ba waaw ñëw ba Europe walla mu dem Amérique koo xam ne si fekk gel boo xam ne ci ci whatsapp la ko xamee walla ci facebook walla euh, nii quoi ñi jox ko copain jox ko photo xale bu nice rek mu ñëw dugg ci pour expliquer le lan de indi en général parce que mi que bëgg et c'est trop il faut que nous solution une solution yi li lan mooy indi quoi voilà Moi je ba je ci ba Nous won ko photo que Dakar Saint-Louis nangam nangam ar xam bëgg Europe Amérique. bay cheikh boo xam turum turam sax bu koy bind dañ ko koy bindal lettre buy bind dañ ko koy bindal jàngul dara xamul dara mu wóor na la xale bii ngay jéem a régler bu doon yàgg moom la nga nekk sénégal mu nekk sénégal yow ñeme woo ko gis ci mbedd ba di di wax ak mu wax la sa wax la fan nga lan moo lay may xale boobu di la jox di la déglu ba nga koy tak du n'importe quoi gis nañ ci théâtre yi man am naa sama parent boo xam ne ci ñooñ ci théâtre la takkoon tu vois ndax seen numéro dañ koy seen numéro téléphone dañ koy def ci cassette yooyu ñu doon jaay mu woo ko ci takk ko ci bi ñëwee aéroport la ko fase am ci ñoo xam dañuy takk koo xam ne ni ma leen ko waxee jóge ci àll ba kii nekk Dakar fii sa papa yu guwaay yow xale yoo xam ne seen vitesse mille la yow sa vitesse nekk dix xale bi daal Europe laa nekk naa ko jaay man Europe laa nekk moom mu jox la corde nga yaakaar ne yaa yaa rey golo gi quoi voilà wax ak moom rapidement nga takk ko pour mu mën a am mu mën a ñëw Europe wala mu mën a dem Amérique xam nga am documents yi et tout parce que yaa ngi fii liggéey soxlu nga fi am nga ay documents et tout xale bi bu ñëwee rejoindre la dina am ay peebam et tout. di la lo, ah yow laa nopp yow li bëgg yow laa lii nangam nangam dama lay wax ne xale boo xam ne gis nga vitesse am la yow sa da lay use pour nga indi la nga ko bis bu ñëwee ba fii dimension yaag moom waaye da ngeen mel ne ak quoi nit ku ne da nga am sa point dur gis nga dàll yi ngay sol am yoo xam 36 38 39 karam sol 40 ñiy sol 45 booyee sol 40 nag nga bëgg a sol 45 gaan dàll yi doo dox dox bu baax xaw ma ndax dégg nga moo la dédde voilà Youssou Ndour dafa leen woyal ne la hmm? day ànd ak moroom yi dana ànd ak cere walla mu ànd ak dëxin kooku lu wér laa la wax waaw bëy day ànd ak moroom yi bëyam kooku mooy booy ànd ànd la ka nga tollol sinon boo ko deful ah bëy bu daxee naan day dem di foo ak ay jësik wala golo jóge fee naan day foo ak jësik mën na ko jig benn jour de waaye deuxième jour ba ndeyam du ko gis lu wér lañ leen wax nag xaw ma ndax dégg ngeen wala fi wala deet Cheikh bu jóge ci àll ba takk xale boo xam ne Dakar dafa jàng ba ne ar xamul nu muy ñëwee Europe wala nu muy ñëwee Amérique nga dox ba jàpp ko ci Facebook bi ah wala ci WhatsApp mu gëm lo ne yow yow la nopp te xam ne bu doon Dakar boo ko mu wax la sa maam fan la juddoo ah nga andi ko ba fii ñëw nag bëgg ko gérer foofu la problème bi nekk da ngay ñëw ba fii mu ñëw nga jógal ko mu def cours italien italien laa leen dans ce cas dans ce cas ah mu jàng italien yow nga sa tur sax mënoo ko bind mujj na gis nga bu ñu la bindee ay lettres sax ci kër gi en italien moom nga koy jox moom moo lay lire lii lañ ci wax lii la fay lii nangam nangam. kooku day ñëw jël benn wëndëng bu mel ne man hmm? saaba bu mel ne man xam nga mu ñëw regle ko yow yaa def démarche yi wut sa ay garanti fayal ko billet yi ñëw legrel ko këyit yi ba mu ñëw lépp légal ci moom hmm? mu ñëw jël baadoolo wëndëng bu mel ne man hmm? mu gérer ko fële ci àll bi yow boo ñëwee wax mun la yow yaay kan yow boo xool est-ce que xool nga sa bopp ci seetu bi yow selon toi yow maag yow mën nañ def bu boobaa nag ngay gën a dee nga xool la nga dépensé ci moom ni nga ci sonne et toutes ces choses là dama ko gis fii ñu dëkk de voilà ñu gën la xam loi Italie lan la ñuy wax dans ce cas Italie lay wax mais Europe yëpp moo fi am boo demee use la même chose xam nga kooku ñëw xam ne fii boo yëkkatee sa loxo di ko dóor dañ lay tëj ci kaso bi kër gi nga jël indi ko ba mu fa bis boo fa reyee yëkkati lami police day ñëw yow la ñuy génne ci biti moom mu des fa muy jël gëreem saabaam bu ko neex gaayan muy ñëw di fanaanam yow mi ci sonnoon ah doo ci def dara parce que da nga dem jël loo xam ne village bi bañ la fay may sa doomu bàjjan sa doomu nijaay da nga ne déedéet soxla woo ko parce que yow da nga évoluer yow da nga ñëw yaa ngi ci taax yi yaa ngi Europe donc yow sa daraja ak sa ngand romb na ngay takk ci village ba sa doom bàjjan boo xam xëy na boo ko fi mu sëyal la sëy ba nga bëgg mais du ko doo def da ngay dem fa ndakaaru foo xam ne si ñee boo ñeme woon jaar Dakar nan leen waa yow boo ne ma sœur na nga def sax mu saaga la nga takk kooku indi ko ay kayitam li nag moom moy indi ñu bare ñuy dem ba mer ak lañ ca dépensé lañ ca def ak ni ñu leen di traité ñu jël doomu jàmbur di ko rey pour lan bu ma la amul kenn du la am bëy day ànd ak moroomi bëyam gaynde ak gaynde ya bukki ak bukki njuur ya est-ce ngeen wax ji lii moom mooy indi lii nañ moytu di takk ay jabar yoo xam ne xamuñu leen duñ suñu ay mbokk xamuñu fu nekk ñu gën a yew di ñuy utiliser lépp ci ay Facebook yi nga xam ay WhatsApp bu ñu bàyyee yooyu deegu bare na wàññeeku parce que gis nañ cas yu bari fii ñoo xam ne fii man jóg je connais quelqu'un boo xam ne fii da takk jabaram dépense yi xaalis bu dul jeex ñëw bu fii jabar jee xëy ne ko xoolal du ma sa moroom ba nga may takk waroon nga xam ne yow mii waaye yow man danaa sëy yow ah ba muy wax xam nga lu mu def police la woo gaay bi lañ jël kër ga mu luye woon ah génnee ko ci biti mu di ko fayloo kër yi di ko dagg ci salaire am di ko fayal ndaw si ndaw si jël beneen saabaam gaayan muy ñëw di fanaan ak di yendu ci kër gi kooku nag à la fin naqar boobu moom mooy indi léeg-léeg ñuy rey te rey warul voilà jigéen dañ ko war a ormal jigéen ku baax président de la république xalif généraux yi ñoom ñépp man mii wax ak yow yow mii rey jigéen moo ñu jur donc jigéen dañ ko war a suturaal fu ñu mën a mën a toll waaw waaye nañ dem takk ñañ tollool waaw munoo jóge ci village ba ñëw takkal ma Dakar waas boo xam ne si dafa jàng ba ne ar yow sutur sax mënoo ko bind ko quoi te loolu bu ngeen fekkul yéen may seetaan war ngeen xam ne ku ci déggul tamit am nga kaabu mel noonu lii moom mooy indi ci bare jalousie boobu nag moom mooy indi nga naa indi naa la fii li ma ci dépensé lépp keneen di la jariñoo dama lay rey déedéet si doomu jàmbur la jigéen la da ko war a suturaal jigéen dañ ko war a suturaal xale dañ ko war a suturaal donc gars yi nañu rappelé wu loolu waaw tey nag pour rappeler du ma gudd noonu. que ne delsi naa yàlla defal na ma jàmm maa ngi sant bu baax ñi nga xam ne chaque jour ñi ngi ma doon yónnee message yi mënuma lim tur yi ndax moo ma ko defee damay jum bu ma fàttee kenn rek dana mer kon nag yéen ñëpp xam ngeen ñi ma doon ak ñi jël seen oto ñëw ba fekk si ma fii ba sama kër set si ma sant leen gërëm leen waaw di rappeler tamit euh, waa euh, euh, les victimes di Tobago ñooñ tamit vraiment ñu may sant la di leen gërëm ndax ñoom tam fàttewuñ ma bi ma nekkee bi ñu ma ci topp ba léegi ndeysaan di ma seet fàtte nañ sax problème ba leen daloon waaye di leen wax ne yéen ñëpp na ngeen toog Macky Sall ñii ay gars yi ñu ko wër ñoom ñooy def yu dëng waaye Macky Sall def lu dëng waaw dafa fekk ne boo jiitee nag moom ah lépp lu sa waay def rek yow lañ koy attribuer voilà mais leer na mané ne Macky Sall lii am ñu koy coow Macky Sall kontaanu ca tey kontaanu ci suba du ca kontaan gannaaw suba yéen waa Tobago nag li ma leen wax mooy muñ leen te xam ne Macky Sall lu mu wax dana ko réaliser Macky Sall jox na leen seen baay yooyu toog leen balaa allah Macky Sall barke Serigne Touba dañ leen jox seen kër seen terrain kon nag li leen ko waxee tranquille leen man du ma ci di ko dana ko def ba keroog président di def mak yeen la parce que mérité ngeen ko ta muñal ngeen ko jàppale ngeen ko ta président xam na ta te inshallah dina len ci jàppale kon nag gars yi li ma leen def mooy ah, di leen jox rendez-vous ba ci fan yi tey du ma guddal dama leen wax rek maa ngi fi delsi naa ni ma koy waxee cheikh bi delsi na de chaîne bi nag mi ngi nii bu fekkee ne yow bindu woo ci woon ah, ba léegi bësal bouton bu xonq bi nga bindoo ci Khadim Gueye TV te xam cheikh bi ñëw na semaine bu ne incha allah da ngeen leen dégg actualité Sénégal yi bari na bagage yooyu dinaa wax ci port bi sàcc yi metti na nit ñi sonn nañ ñi jël conteneur yi di yóbbu ay baadolo yu tekkiwul dara di ñëw di sàcc seen ay conteneur yooyu daañ xam lan moo waral lool daañ ci waxtaan allah rabbi ba ci fan yi peace and love guys in the world fan leen xaadim teg fii respect